pluie mi ngi ñëw ku ak angle ba nga itam moom allant dans sens mais récemment ñu aussi li que Marrakech si keuru ki que justement euh, Macky Sall concrètement alors euh, ban qui nga da def ci li que justement euh, ñu localisation qui nga xamni euh Macron Mame qui est na seetu ko ki nga Macky jamono ji ñu ni ki que Canada ah ci diggante bi di bañ koy wax ak léegi mën na fee dem Maroc de parce que ba ñuy xibaar ne mi ngi woon Canada. ah defe naa Salma ko waxoon. Hmm. bi mu koy wax ak léegi. yàgg ah, Canada moom yàggoon na moom. war na mat ah, ah deux xanaa nag ci diggante bi war na fee mën a déplacé wu de dem Maroc. non Canada ñu bañ bañ yéegee la demoon Canada. sam na fa ah. ay cinq quatre mois. waaw mais dama ne Salma bi mu koy wax ak léegi. Hmm. xam nga après tontu na. ba xibaaroon na ni sax war naa def émission ak Maimouna Ndour. Mambay du si je peut-être peut je peux me tromper hein, je peux me mm. tromper. Mm. mais de toute façon ce qui est sûr et certain La réduction des comptes Fallou, La am solo pas balaa ñuy xam solo si autorité autorité dem jusqu'au bout de la logique. parce que réduction des comptes j'ai souvent l'habitude de le dire bu amul La mm. réduction des comptes bu amul bonne gouvernance doit am bonne gouvernance bu amul démocratie sociale ou la wax démocratie économique manam hmm. mu am une équité par hmm. rapport à nañuy gestion les ressources de ce pays Je hmm. ku nek mën ci gis seen bopp Lool du am maintenant lool nak bu amut moy jur li ma wax inégalité sociale Té inégalité sociale bu amul fa lu muy tension sociale nit ñi di su

waxuma le rapport rek mais Mame Mbaye Niang dafa am loo xamante ni tudd ko ci hmm, muy affaire product bi. Produk bi gis nañ ni programme bobu en réalité nañ ko waroon jëmele dess na ci lu bare bari ci ay révélation yu am. donc japp na ni dossier bobu la ci Ousmane Sonko wax kérok ba mu taxawé di wax ak hmm. ndawu passé fi né dossier bi mi ngi ci table am. Hmm. kon japp na ni moom itam dana bok ci ña nga en réalité dans l'intérêt, pour dan war nañ ci nous régime rendre compte parce que Mambay quoi que l'on puisse dire aussi non seulement c'était un acteur politique mais en réalité Paris na fu jaar itam même tourisme ah. hmm, tourisme jaar na jeunesse jaar tourisme qui ko ci loxo euh, ah, kan lañ ko ah. hmm, jaar na fu Paris bon Maroc loolu la localisation bi mm, wax mm. si président Macky Sall mm. ah ce qui est sûr et certain même bu nekkee Maroc itam bu ko justice bu réew mi soxlaa mën nañ ko jëli mais est-ce que cela si est possible exactement vu que ni dafa mel ni ñun ak wa Canada amuñu dina xamné que moo justement justement jokkalante bi soo soxlaa nit ñu indil la parce que mm-hmm. récemment énuméré neen jurisprudence bu mola Morgan ba nga ko soxlaa euh, Canada dafa bañ exactement les autorités canadiennes peut-être mais Mollah Morgan est-ce que yorul nationalité euh, ah bon voilà. waaw waaw je euh, demande tout simplement peut-être euh, peut-être peut-être peut-être peut-être yoon na ko mais tout en les autorités canadiennes dañuy bañ exactement jurisprudence boobu leen teg peut-être pour une leen doon loo xam ni itam dina yomb concrètement Serigne. mais mais je pense que Fallou quand l'État quand l'État veut quand l'État am na lu ñu ko waxee rek. Hmm. Euh, bu état soxlaa. Hmm. rek mën na. parce que xam nga fii bëri na ñoo xamante ni lancé nañ leen mandat d'arrêt mu réew mu leen gis rek mën leen teg loxo. Parce que, quoi que l'on puisse dire, détournement de deniers publics, kooku kooku kooku kooku kooku kooku xaw ma nu ko wolof njaay di waxatee kooku kenn mënu qualifier en hmm. réalité hmm. certes nag ñun ak yenn réew yi mën nañ am une coopération bilatérale lu jëm si wàllu woowu mais man daal jàpp naa ni bu l'état du Sénégal soxlaa nit ak fu mu mën bu fekkee lancé nañ un mandat d'arrêt contre cette personne là pour cette personne là pour mu ñibbisi pour mon a encore en réalité parce que aujourd'hui on parle de village planétaire pratiquement bëri na yoo xamante ne dañ ciy jokkalante mm. am na loo xam ne nag lu ñu a gën a xóotalaat la mm. dinaa xool ba xam mm. Canada ak Sénégal si wàllum relation euh, ci wàllum coopération euh, judiciaire ndax am na lu leen lié parce que domaine boobu gëstuwuma ci bu baax mais ce qui est sûr et certain japp naa ne bëri na ñoo xam bu ñu même bu ñu dawee làqu itam ca réew yi ya ñu dem làqu mënu leen njëriñ kaaraange hmm. mais sëriñ te Maroc aussi ma xamal la benn affaire Maroc xam nga tax gars yi privilégié Maroc hmm, pourquoi mais parce que Maroc daw làqu la asile hmm. ah mais Maroc kenn du la fekk di la jël Maroc xam nga si kii lañ nekk Maroc presque royaume la Maroc Maroc président Macky Sall bi <coughs> ci ay kii yu njëkk bi mu génnee dem Maroc donc choix boobu c'est pas un choix qu'on a fait comme ça ni c'est un choix bien réfléchi non c'est un choix bien réfléchi Tay bu si pays européen pour ko ko du mais Maroc Maroc daw la dé si way politique yu bare bari daw hmm. làqu la dé. Hmm. mais Serigne tout le temps le constat peut-être est même entre euh, Ablaye Wade Macky Sall ba dit tay le président Bassirou Diomaye Diakhar ku ñew li ngay ñëk a wax moy li nga xamné que modi la réduction des comptes et où finish. Euh, dañuy seetlu ni lii état Sénégal di si ñàkk mooy ëpp foofu sax après li réduction des comptes de di dugalaat concrètement kaaw Ablaye Wade nekkoon na fi kaaw te Macky Sall récemment euh, lu mu toppee toppee toppee jërul un franc si ki nga xam ne que di Karim Wade ay da ñongu li ñu jëloon si moom daal di koy delloowaat concrètement alors le plus souvent li si état bi di ñàkk moo ëpp lu mu siy gagné tey ban paramètre leen wala mën a utiliser tey pour ne pas tomber tey si wàllu wu nu mel diggante Sonko ak Diomaye. waaw mais problème bi mooy xam nga ñaar yooyu tamit yemul. Hmm. Maki règlement de compte la doon def Maki ñim japp ñepp endil Macky leen andil dossier. Fallou ñi ñu jàpp ñëpp Macky <laughs> hmm. moo leen andil dossier ñom mom mom mo créer dossier andil la mais ñi ay rapport yo xamanteni ay magistrat def nañ ko avant ñi di ñew au pouvoir. Hmm. est-ce comprendre nga maki dama ne règlement de compte la doon def ba ci Karim wad ak ñi ko tudd lu tax règlement de compte. Mm. mooy ci kaaw Karim Wade bu ñu fa taxawee tuuti Karim benn cinq personnes la ñu waxoon la ñu topp. mu xëppal ñu baree bari xëppal leen ñu daw dem rejoindre ko daal di koy topp. ñu topp ci Karim Wade jusqu'à preuve du contraire xam nga nee naa Karim même bi ñu mm. koy topp du rapport ko épinglé woon de. man mm. gisuma benn rapport bu ko épinglé. gisuma ko. looloo njortas ni que nii fond Qatar yi njort voilà njort dañ ko téye ba pare di door a wër. yebal eh. adduna bi fépp pour ñu wër. mais ñii nag loolu noonu effort boobu yëpp du leen ci fekk jël xaalis pour di fay ay nit ñu dem di wëri compte nangam ak nangam parce que xam nga lu la mais il faut ñu déployer ay euh, agents judiciaires de l'État non xaaral xaar ma ñëw ba foofu yeggaguñ fa hmm. processus bi xaaral mais ñii déjà dafa am ay rapports yoo xamante ni ñoom fii lañ ko fekk yu wane ni ñii kat am na ay soupçon de corruption yu ñu jot ni def nañ ko ok loolu amul woon ci Karim ñëw automatiquement génne rapport ne Karim def na lii man musuma ko gis ci Karim xalifa Sall mii dañ ko mais Khalifa le cas de Khalifa Sall également mais bii nag dafa gën a doy waar bii dafa gën a point pointu. Hmm. parce que ñii benn ay rapport a leen topp rapport yoo xamante ni avant que ñu ci teg kenn loxo rapport yi génn na ba pare tu as maanaam ñii dañuy ñëw rek mettre en œuvre la nga xamante ni moo tukkee ci rapport yi dañuy ñëw rek jël jox yoon mu def dañuy ñëw jël rek yoon jox mu def. te ñoom ñoo defar rapport yi. ah mais ñoo ko defar seen rapport mo mo mo moo ko defar. mo ko defar parce que ba 2022 Macky Sall la fi ne. ba 2022 date bi nga xam ci lañ boucler yenn rapport yi bo date boobu ba léegi Macky Sall la fi ne rapport Covid 19 bi kay fi lañ fekk ñun ñëpp alors. mais mais pourquoi Ousmane Sonko est accusé? pourquoi Ousmane Sonko tout le temps mooy accusation parce que récemment Manar Sall mu accusé koy les otages d'Ousmane Sonko dem ba fait, ki n'a xam le président Diomaye doo doon dégg les otages de Macky Sall waaye les otages de Sonko tey concrètement Oui, mais xam nga ñoom euh, waa l'ancien régime bi hmm. man damaa jàpp ni Sonko parce qu'en en réalité xam nga ñàkk nguur fàllu neexut dafa metti te boo ñàkkee nguur ka nga jàpp ni moo la xañ nguur hmm? hmm. kookooy njëkk doon sab noonu du nekk si jàmm waaw kookooy njëkk noonu ki nga jàpp ni moo la ko xañ kookooy njëkk nekk sa noonu nga wax ko ak nga ñàkk ko wax te ñoom nag jàpp nañ ni sunko moo leen xañ nguur hmm. parce que dañ naan bu doon jomaay rek duñu wàcc mais amaana sunko ma ca dugal loxoom hmm. moo leen xañ nguur koo xañ nguur mais nga xañ ko ay privilégié xañ koy avantage am mi ngi mel ne li daal assemblée nationale député yi tey boo leen xagné nguur xagn nga leen lu bëree bëri xagn nga leen possibilité meuna voyage ñu ci bëri bëri ak seen passeport diplomatique ak avantage ñu ci doon am yépp hmm. tu as vu. moo tax nag Sonko nekk sen sen principal cible motax souvent bu ñu attaqué Sonko lañu attaquer hmm. et que Sonko aussi nek entre guillemets bayfal bu taxaw pour dékku lolu est-ce un ngi dégg. Baye Fall boo en réalité assumé na. Hmm. son rôle de premier ministre. Baye Fall boo xamante ni taxaw na na ba mettre à l'abri le président de la république ci critique yi ko naroon a dal. tay kuy son ko ngay saaga. kuy Son ko ngay saga kuy tagg jomay ngay tag mais c'est ça l'objectif du premier ministre man pour man c'est ça son objectif. protéger le président de la république. Hmm. Mo tax président lu baax rek la ngay dégg nit ñi di wax ci mom. <laughs> dafa yaru dafa yaru dafa tey nangam ak nangam. Légui nak Sonko mi nga xam mo ñew taxaw taxaway Baye Fall. Hein? Ah, né dina def en sorte bu président de la république mëna mucc ci ñenn ñi Koku moy dégg lu né tam moom itam paré na pour assumer ko itam. kon japp na ni moy li ma la wax rek xagn gi ñu leen xagn nguur gi aussi. Hmm. parce que ñom japp nañu lu ñu ñàkk. ak lu ñu Sonko mo leen ko tek alors mi ngi non exactement par rapport ak li nga xamné que modi la réduction des comptes ak tolluwaayu exactement alors donc régi ñu daal di jàll si leneen sans plus tarder euh, par rapport ba tey actualité bi ak tolluwaayu Serigne ñu né